maa ngi sant yàlla di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dool ko xool ak mucc moom ak njabootam ak sahaabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba dinay tukki bokk yi ci nafar gunu bokk di nafar yenn ci sunuy doxalin yu jar a xoolaat ci leen waxtaane woon ci ajjuma ji weesu yenn doxalin yu ñuy doxale ci armel yi tey nag nu bëgg waxtaane meneen mbir moo xam ne moom am na solo te mooy li ñu bari ci nun di jiitu seeni kilifa di jël cër ba seen kilifa waroon a ame rafet njort ci kilifa ak di nekk ba mu digle mbaa mu ndigal loolu dafa bokk ci li yàlla farataal ci jullit ñi yàlla da ko farataal wax na it bokk na ci liy wone ne nit ki ku ragal yàlla la mooy ku déggal yàlla la moom yàlla it mu wone ne bokk na ci lii tax nit ki am njéggalug yàlla mën a am itam yool bu mag bu jógee ci yàlla moo wax loolu ci alquranul karim wax na yéen ñi gëm bu leen di jiitu yàlla akub yonentam bu leen leen di jiitu day leen déglu ba xam lañu bëgg ngeen door koo def te it bu leen di yëkkati seen kàddu muy féete kaw kàddu gi yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu leen di ko joor itam mu ngeen di ci seen biir ndax loolu mën naa waral seen jëf yu baax yi ngeen defoon sax yàqu ba du leen amal njëriñ mu ne ñii wàcce seen kàddu bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teewee ñooñee mooy ñi yàlla xam ne ak ragal yàlla nga ci ñoom te it danañ am jéggal danañ am itam pay gu màgg sëriñ bu mag bi itam a cheikhul xadim radiallahu anhu wa arda wone na ne loolu te mooy di topp ci ginnaaw kilifa bañ a jëf lu jiitu muy digle mbaa muy joxe ndigal waaye na ne loolu mooy tax nit kii di jariñu mu ne bu leen def lenn lu àndut ak ndigal ndax ndigal ab sart la ci nangu jëf mbir mu ne bala moo amal njariñ ka koy def rek day fekk mu tege ci ndigal loolu kon moo aju ci ni nit war a ci ginnaaw kilifaam bañ koy jiitu waaye nag bu nu xoolee li xew dañuy gis ne léeg-léeg mu wuuteeg loolu danañu gis lu bari am ku kilifaam teew ba noppi moom mu yëkkati kàddoom wala sax di digle wala muy tere te kilifaam teew bu kilifa teewee kilifa war a digle kilifa war a tere keneen daa war a déglu ndigal waaye warta jóg di yëkkati kàddoom moom di diglee ko tere te kilifaam teew te loolu nag danañ koy gis lu bari te mën naa am sax kii di diglee ka tere xamul sax lu ñu war a digle xamul itam lu ñu war a tere lu ñu war a digle mooy lu baax li ñu war a tere mooy lu bon am na ñoo xam ne sax duñu xàmmee dëgg-dëgg nag lu baax ak lu bon la jare digle ak li jare tere ñu cee teg nag seen kilifa teew ñu jóg ñoom yëkkati seen kàddu naan dañuy digle ka tere léeg-léeg itam ñu gis ku jóg di wax di wax ci turu yoonu murit walla muy wax ci turu Touba walla ci turu ñi dëkk Touba benn mu wax na ci seen tur la waxe wala bu ko waxut itam dana bëgg ñu jàpp loola ñu jàpp ne ci turu ñooñu lay waxe te amut lenn lu ko may mu waxe ci turu ñooñu te la ko tax di wax mooy rek njariñul boppam wala njariñul kuréel bu mu bokk waaye njariñul Tuubaa yépp taxul muy wax njariñul yoonu Murid yépp taxul muy wax loolu mbokk yi foog naa ne dëgg-dëgg buñ bëggoon a wax li mu doon dañ naan ay teggiin yu des la ay teggiin la yu des bu njaboot di yëkkati kàddoom ci kanam kilifaam di diglee ko tere te kilifa ga teew te amu ca ndigal bu nit dee wax ci turu dëkk bi walla yoon wi te amu ci ndigal loolu dëgg-dëgg ñàkki teggin rek la mën a tudd ak ñàkke war ma itam kilifa yi li ci doy waar nag mooy muy jóge ci ñoo xam ne lañ leen xamee woon la leen daan gën a ràññale mooy ay teggin lu mat ay lu mat ak xarnu lu mat téeméer yoo xam ne fu ñu nee murid rek la ñuy xel di njëkk dem mooy teg yi bu demee nag ba lu mel noonu di bari ci biir murid gi day gën a doy waar moom ñaan yàlla mu may nu yiw àdduna bu àllaaxira musal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm may nu fa nu gudd ak wér te nu jàpp na ci suñu biir yëpp nangoon na jëf yu baax yëpp